papa ni ko léemul jataay bi te xam nga Baye Cheikh booy génn bisimilah def ci baax kon daal ñu ngi wax ne daal dal jàmm ba mu dalagul nan nu ñaanal yàlla dañoo bëgg rek nu kontaan ba bu nu ba ñépp jële fi xam-xam ñépp am loo xam ne li dañu ko yóbbaale fàggoo ko seen diine am tamit ñoo xam ne ñi ñi ngi doxoon réew mi ñu man leen a wane wane politiciens yi nga xam ne tamit ñoo war a teg seen tànk ci yoon mhm. yooyu daal tubaarkàlla ci li tàbbi ci carte générale loolu daf ci bokk mhm. kon kon Baye Cheikh nanu ñaan dal jàmm bu mhm. ñu dalee jàmm rek lépp dana am Baye seex waaw te ku ñu mus si dalal jàmm dal nga ci jàmm n'est-ce pas <laughs> <laughs> bu bu bu yàggul euh, Pape Djibril euh, ñu ngi euh, doon dégg ab communiqué bu jóge ci CNRA loolu itam mënul ñàkk ñu ñëwaat ci tuuti puisque tase nañu ak kilifa gi nga xamante ni moo ko jiite ci yenn ci ay dérives yu ñu ne dañu ko seetlu ci télévision yi di koor geek yenn yiñ ci seetlu di alerte boo xamante ni defoon na ko ma buggoon ñu ñëwaat ci tuuti. Mm-hmm. Oh, c'est c'est important te loolu mooy rôle Euh, di di di di di di profité aussi di jaale waale Babacar Touré. Mm-hmm. bi nga xamante ni moom moo ko jiite woon. Mm-hmm. def fa liggéey bu am am solo. Mm-hmm. Euh, kii di Babacar Diagne ñëw remplacer ko. je pense que ne seen rôle institution yu mel noonu. nit ñi dañuy laaj contenu bi jamono bu nekk mais li ñuy laaj aussi bokk na ci seen vocation première seen mission mooy foog jamono bu nekk ñoom ñuy def ñu am ñuy assumer ce rôle de veille et d'alerte. jamono bu nekk c'est important parce que pluralisme ci ci lépp noonu lañ koy laajee tey jii ci surtout parti politique yi. seen bariwaay donc foog mu am régulation. donc médias yi tamit mënuñu échapper a cette régulation. par rapport au contenu. Mhm. par rapport ak euh, orientation yi. Mhm. par rapport ak loolu yëpp cette globalité là. Mhm. nan lay dimbalee sunu réew. fi nga xamante ni foofu la toll ak ambition yi mu am nan la ko war a accompagner. donc euh, média c'est un élément extrêmement important ci processus de développement. loolu moo tax jamono bu nekk il faut que ñu koy saytu. xool kese ndax dafa am puissance bu doy waar loolu moo tax sax ñu tuddee ko quatrième pouvoir non constitutionnel waaye quatrième pouvoir la pouvoir bu am doole la Ignacio Ramonet nag dafay wax ne euh, mu ne mu ne médias yi ñooy le seul pouvoir sans contre-pouvoir ce qui est dommageable pour la démocratie donc il faut que nag ci sunu biir ñu am consensus yoo xamante dinañ jëmmal ay kuréel yoo xam ay borom xam-xam ñu fa nekk ñoo xamante ni dinañ mën a élever wu nekk au-dessus de la mêlée jamono bu nekk ñuy téye ñi nga xamante ni ñoo nar a ndax d'habitude sax nit ki mën nay daanu souvent te fekk ne il s'est trompé de bonne foi. Mhm. ba lu baax rek moom moo taxoon mu jóg. Mhm. waaye nag dafay baax nga téye loxoom. Mhm. maam Abdou Aziz si radiyallahu taala anhu daf doon wax ne nit ki bu demee ci kaw suuf ba amatul ku naan ko on on na na gas kàmb dugg ci. garmi nee na ma booy de boo nee ci àddina. booy dox. amal ku lay kobas. tout à fait waaw ku lay ci mbagg de temps en temps am solo. Mhm. il faut nga am ku lay kobas waaw. c'est important euh, je pense que sénéral rôle boobu la nekk di assumer tey. Mhm. ñu koy ñu koy gën a moom aussi ni mu ñuy soññee lañ koy soñee mhm. comme ni ñuy soññee institution yëpp. mooy kenn ku ci nekk aussi il faut que jamono bu nekk ñu mën la évaluer. xool nan nga dimbalee médias yi. Mhm. xool aussi nan nga leen dimbalee ci contenu. Mhm. xool nan nga leen dimbale ci orientation te warul amee yat rek pour dóor. Mhm. waaye dafa war a am aussi une dimension pédagogique. accompagner ñi nga xamante ni am nañu volonté def média mhm. parce que média c'est important mhm. mais encore une fois il faut que mu euh, mu mu nekk en conformité mhm. ak sunu euh, objectif de développement yi ñu am tant sur le plan économique que sur le plan social et il y a une forte dimension culturelle et cultuelle qu'il faut prendre en compte et justement c'est cette moo tax ci biir koor gi ñu daal di alerter avant gi xam ne c'est important ce que vous faites mais attention il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. voilà moom sax am na ay kàddu yoo xamante ni euh, wax na ko ginnaaw kayit gi ba ñu ko seetee lii la Babacar Diagne wax. Euh, dafa am lu am ci daaw ak daaw jeeg dëgg-dëgg daaw ñu ko gis ndaxte jusqu'ici dama doon euh, préoccupé wu ci apparu sketch yi ak yooyu ci Ramadan pour ñu bañ a tourner la religion en dérision ak yooyu. mais dañu seetlu ne vraiment euh, ñaari at yi euh, ngaañu ma nag am yaakaar ne rek xër la ndax euh, ku nekk si sëriñ danga ciy xër loolu moo am Sénégal waaye su la passion yóbbee yóbboo mën nga dem ba am benn mot bu gaañ keneen wax loo xam ne li xëy na keneen daf ci gis boppam ci ne yow da ko tutal alors te te tutal sa sëriñ kenn du ko nangu ci Sénégal dafa tax nag diggante confrères yi tarixa yi di xajam moo tax ren ma dànkaafu euh, ñaax leen te gis nga Mamadou euh, suñu dëkk yi c'est des nations à construire ñun Sénégal nag ñoo ci tane en Afrique dañ ci tane rek nag mais ñoo ci tane vraiment xam ngeen frontière yi ni mu demee eh, du ma def cours d'histoire ci loolu mais suñu nation yi dañu koy dañu koy is still building up comme diraient les anglais moo tax dañu war a vigilant ci loolu vigilant ci loolu. voilà donc dafa euh, boo xamante ni defe naa ñun ñëpp jot nañu ko ñu koy gërëm bu baax moom Babacar Diagne ci kàddu yooyu nga xam ni fésal na ko ak suñu équipe yi ko euh, seeti woon lu jiitu ñuy tàmbali saison bu bees bi lee nga xam ni je rappelle que ñu ngi euh, ci.